bu ko defee ñu ñëwaat léegi léegi. te ku ne xam na ne tamit man ak Ibro Nadio du tey kon bu xewlee damaa war a ñëw neex. ma leen di ñaanal nag ca kaw ca kanam jàmm rek laa leen di ñaanal ndax dafa def nekkoo leen fi lu def lu baax di wax lu baax. seen TV moom li leen wax ci kaw ci kanam rek parce que ñu ngi def lu rafet. waaw seen liggéey rafet na torop. Marina Ibro gi neexoon na de lii. neexoon na trop macha allah mu nekk xale bu ndaw tamit bari talent loolu fu mu wootee waa parcelle wuyu si ko fu mu wootee waa Grand Yoff wuyu si ko maanaam dafa teel a bari euh, public public bu boppam. moom fu mu wootee rek am na public boo xam ne foofu lañ koy fekk macha allah mu nekk lu neex lu doy waar nee naa leen exclusivité bi incha allah di ngeen ko seetaan après ci raaj di ngeen gën a gis loo xamante ne nii ay fecc la ay ndaga la waaye tamit way dëgg boo ko bëggee dégg ah di nga dem ci Ibro de. ndax gis naa moom macha allah moom mën na woy trop. ils sont bien on a quand même une une, une nouvelle génération ba nga xamante ni c'est sûr qu'ils sont en train de relever euh, le défi en ce qui concerne la musique mbalax parce que nag ñoom. mbalax la ñuy def waaye askan wi gis nañ ci seen bopp bu baax a baax. boo gisee sax bu baax a baax jeune talent yi ñoom dañuy am seen public bopp. Mm. maanaam dañoo mën a way seen gox dañ leen di dañ leen di tiitaroo di leen damoo. Mm-hmm. donc gars yi dañ dañ leen di dool dool dooleel à chaque fois fépp fu ñu woote. Mm-hmm. dañuy ñëw moo tax ñoom duñ ci da te nee naa la xale yi bëri nañ trop. Mm-hmm. waaye nag ñun ñëpp mën a way macha allah. ñoom ñëpp ñoom ñëpp mën a way on leur souhaite euh, bon vent du ñàkk sax moom Ibro dinañ ko fi dalal euh, sur un spécial live parce que nag bëgg na ko bëgg nañ ko Mouhamed. Mhm. live bi foog mu tàmbali sax. partir de cette semaine wala semaine prochaine. foog ñu mhm. ah, mhm. sax chaque fois bu ñu amee soirée ñoom ñoo lay yónnee flyers yi di wax pour que nga ñëw. parce que ñun tamit li ñuy def ñoom dañ cee gis seen bopp. loolu la. et c'est toujours bien Marina merci beaucoup. ayca li moo nekkoon Baye Night bu tey. di la ñu gisante waat vendredi incha allah ci yeneen i actualité nocturne. incha allah du noonu. waaw ayca Jeanne nag indi na ay people yu saf de. Hmm. Mhm. kon kay mun nañoo people rek. waaw kooku ñu dem xooli Jeanne Mendy du dëgg. loolu mënul ñaar.